Yeah. Voilà l'arrivée de la femme d'Ousmane Tounkara. Hein? Non, non, dara xewagul dara xewagul. pare guñu. Dañu pare. Non pare de pare guñu. Sénégalais yëpp a ngi nii nañ macha ok guys gis ngeen tey ñu ngi fii ci New York City pour euh, ñëw supporter Ousmane Tounkara parce que c'est l'état du Sénégal qui l'a accusé de terrorisme donc tous les Sénégalais sont la ñëpp ñëw nañ génn nañ yaakaar naa ni terroriste du am lii terroriste du am lii ñëpp génn nii terroriste do am lii Free Tounkara yéen a koy dégg donc en direct laa leen koy jox sur le snap de Sankara Mbaye sur mon Instagram di ngeen gis lépp vous puisque vous yaa ngi benn voilà la femme de Ousmane you know yes non dara voilà l'avocat l'avocat baa ngi nii nañ nañ taxawee côté rek nañ taxawee ko te so gis ngeen avocat baa ngi noon di soog a yegg si avocat Ousmane Tounkara bi voyez guys ñu ngi nii ci procès Ousmane Ousmane Tounkara ngeen ni Sénégalais yi génnee gis ngeen magnification bi fi am everybody everybody yaakaar naa ni terroriste du am li terroriste nag du am li gis ngeen ñëpp génn nañ ñëpp. ñëpp génn nañ gis ngeen ñëpp génn nañ yaakaar naa ni terroriste du am lii dinaw know bi moo war a wax ni avocat wu Ousmane fan leen sénégalais yi maire xale yu ndaw yi salli ah, ah. yaakaar naa ni terroriste du am lii sorry sir sorry yeah gis ngeen avocat bi moo war a wax nii. leave the sidewalk man. leave the sidewalk man. leave the sidewalk. bëggul wax in front of people ñu koy topp di ko topp nañu ko bàyyi mu xam jabaram. leave the sidewalk. come on am na loo xam ne is private. ok. come on this is too much. to write letters, write letters, sign affidavits, and be vocal with regard to your support. Voilà l'avocat d'Ousmane Tounkara. Uh, and you know this is a he's being persecuted yeah. because of his political activism. Yeah. Uh, and Violin it's really important that we band together as a community that you come out, show your support, and make it known that he is that it's dangerous for him to go back to, uh, to Senegal, sure. and that he is on the right side mm-hmm. of this political process. They're using their their influence with the United States government to silence I know, I know, but we got and to silence you all. Right? So yeah, they try to silence. We need to do more both. Just so that they know the Senegalese government. Can you listen? No, no, no, no. Stick to all of here. Sorry. est-ce que yaa dégg lii nag. Ah? dégguma gis ngeen ñëpp a ngi nii génn nañ sénégalais yi génn nañu ñëw nañu fi tey you know pour ñëw supporter ki nga xam ne yaay daara maamu daara maamu daara ziar naa la daan jëf gis ngeen you know li ngeen xam ne moo xew sénégal gars ngi nii sénégalais yi génn nañu yaakaar naa ni terroriste doom am lii terroriste du lii non ñëpp génn nañ lii nag moo xew ci sunu réew non jeune bi ñu rey à à aux demee ba la police ñëw di ñu jox autorisation pour ñu marche aux États-Unis ca ngay xam ni yaa ngi problème non ñoom ñu ngi ñuy jox ñu ngi ñuy jox autorisation pour ñu marche cela veut dire que ni sunu dëkk nag ñemewu ñoo marche suñu ndaree marche coow am. you know mais ñii si seen réew mi nga xam ne ñoo ko defaral seen bopp. liggéeyal ko seen bopp ñoom ñoo ñu may autorisation pour ñu marche tey. ah a free country. moom dañ koy làq dañ koy làq yi dañuy wax sari dañ koy làq <laughs> Ousmane. That's our brother. He's not a terrorist. Yes, he's not. Sad. terroriste su mbooloo mu mel nii di génn di la supporter waaye donc guys guys dem leen ci sama snap lépp fa lay xewee dégg ngeen ah ak Sankara Mbaye